allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, Papa Massiré Touré. oui c'est moi Massiré Touré. d' accord ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm si Dakar Buzz. Ah, ma mhm. fàttali internet yi d'abord ne ku ñuy waxal ni euh, mu ngi wuyo si turu euh, Massiré Touré euh, nekk waajur si Oumar Touré di capitaine Touré mi nga xamante ne ni moo fësal si page Facebook am ne démissionné na gendarmerie di def it ay révélation mhm. ñu bëggoon am réaction ay waajuram xam naa danañ leen gën a yaatalal ci mbiram ah, ak kii may waxal ni di Massiré Touré nga fàttali ñu rek lan nga si capitaine Touré. D'accord, attendez, yaay waajuram bu góor waaw ma ne nga nekk waajur ci capitaine Touré. waaw euh, tey euh, ñu gis lu am euh, mu doonoon ki nga xamante ne ni moo yoroon enquête bi si mbir mi wutale Adji Sarr ak Ousmane Sonko. ñu xëy gis mu fësal ci page Facebook ne moom daal dinay tekki ndombal tànkam en tant que mhm. waajuram naka ngeen dundee li ni mel. ñun en tant que waajur. Mhm. kontaanu kontaanu. kontaanu leen si. kontaanu leen si parce que boobu baaxul si si si mhm. lu mu def baaxul. Mhm. ñun loolu mu tax ñu ñu ñu à l'ensemble des Sénégalais. pardon parce que moom lu mu def en tout cas ñaru koon def. moom euh, en tout cas dépositaire de secret warul warul en tout cas euh, diffuser secret mm-hmm. moom euh, homme de tenue la tamit dafa war a respecter hiérarchie am dëgg la waaw ñun en tout cas kontaan ñunu et ànduñu ak moom àndu leen ak moom ànduñu ak moom jotu leen a jokkoo ak moom laata muy jël bi décision jotuñu ko su su suñ ko jotee duñ ko ñeme def. kon ba mu amee ba tey déggu leen ko. dégguñu ko ñu ngi koy ut ba tey gis ñu ko depuis une semaine. Hmm. waaw suñ ko gisul woon jël ko ki ko parce que pour moi. en hmm. tout cas àndul si sagon da ngeen jàpp ne àndul ak sagon man loolu laa foofu. dafa mus am problème mu xel si euh, lu weesu. déedéet déedéet mosul am problème xel. lu ngeen jàpp ne kon àndul ak sago. parce que lu mu wax mu wax euh, en tout cas mosu ko wax et puis jaaduwul. lu mu mhm. wax soo suñu déggee lu mu wax. Mhm. jaaduwul parce que léegi moom en tant que euh, petit gendarme. su mhm. su laajtee démission membre gouvernement wala procureur. xam nga loolu loolu àndul xelam. su poussé encore population bi dem marche wala kii. Mhm. loolu andul sagom. Mhm. waaw en tout cas man noonu laa ko gisee. noonu nga ko gisee. waaw parce que moom dégg naa tey su suba wax naa mu ne. Mhm. moom en tout cas dara jotu ko. waaw loolu la wax effectivement nee na il est en bonne santé dara dalu ko lu mu def si lépp rekk wala ilaa lu mu wax da koo def si propre gré maanaam si coobare boppam. am nga am nga am nga xel feebaru xel le fou ne dit jamais qu'il est fou le fou croit ce sont les autres qui sont fous mm-hmm. le fou ne dit pas qu'il est fou mais moi jusqu'à preuve contraire mm-hmm. euh, euh, euh, andu je peux dire andul ak sagam c'est un fou d'accord bi hmm. ba mu amee ñaari at ba tey euh, mi ngi ci say loxo yaa ko yar euh, tey yaa ngi ñuy xamal ne li nga gis ci moom euh, mbeteel la ci yow ndax mosoo ko gis ci moom ba nga jàpp ne àndul ak xelam lan nga mën a yaa lan nga yaakaar ne moom moo ko tàggalee ak sagoom. non am nga peut-être dossier bi walla en tout cas bon mën na nekk ci mystique parce que Afrique Afrique la ñu nekk mais en tout cas man wóor na ma àndul ak sagam. wóor na la àndul ak sagoom. waaw. moom am na soxna noo am na soxna am na ay doom am na ñaari doom keneen beneen bi sax benn jigéen ak benn góor góor gi man la ko tuddee yow la ko tuddee macha allah léegi ana soxnaam ak doomam yooyu ñu ngi foofu si caserne bi ñu ngi si caserne bi mu bàyyi te nekkul ak ñoom jokkoo nga ak famille yam boobu waaw toujours maa ngi koy o ne moom tamit déggul kii moom it déggul Omar mu ne umaan Umar. d'accord Euh, dégg nañ euh, li nga wax yëpp da nga jàpp ne euh, àndul ak sagoom sa xel mm. aussi ñaaw na ci wàllum mystique maanaam xar fa fuufa neem sax mm. dégg nañ ko mu ne lépp lu mu def rek moom moo ko def si coobare boppam neem déposé gul lettre démission wam fa nga xamante ne ni fa la ko war a déposé léegi mm. yéen ngeen ne da ngeen ko soxlaa gis wa ila da ngeen ko soxla dégg bu ngeen ko gisee yan tànk ngeen si fas yéene dox. ñun kay suñ ko gisee. Mm-hmm. première fois bi ñu yóbbu ko si psychiatre si hôpital. bi ñu wuutal ko en tout cas sëriñ pour ñu sang ko. sangat ko waaw sang ko parce que ce qui est ak magam waaw. waaw. ak xelam daal ngeen jàpp. voilà àndul ak xelam waaw. Mhm. nga yaar ko boo ñu ko doon décriral tey ban genre nit la. moom capitaine Touré. ah man en tout cas damay wax du Umar bu ma xamoon. Mhm. waaw parce que Umar bu ma xamoon. Mhm. Euh, c'est un homme sérieux. Mhm. calme. qui rendait toujours service à la population. même soo ko fekkee këram ou bien ay nit doo wax kii capitaine la. waaw. mais léegi léegi en tout cas. depuis depuis sortie yi. Mm-hmm. en tout cas man xaw ma xaw ma quel genre de personne il est maintenant. Mm-hmm. waaw. su ma la déggee daal beneen Omar nga gis par rapport ak Omar bi nga yaroo. beneen Omar laa laa dégg. kañ ngeen géej a déggoo laataa lii di am. bon euh, defe il y tout. trois jours de cela. def mhm. ma oo. mais mhm. mootul sa ñaari minute moo coupé. moo coupé. waaw def ma oo ma ne ko Umar foo nekk mu ne mu ne papa en tout cas je me porte bien et je suis en sécurité ma ne ko man du du loola du loola kii man ñëwal fu ñu nekk génnal foo foo nekk li nga def ni baaxul. li nga mhm. wax nii arrêté ko. Mm-hmm. doo waaye arrêté ko bul dem si rajo yi bul bul def réseaux sociaux yi en tout cas feyal yëpp pour nga ñëw mm-hmm. waaw ma ne ko yow àndoo ak Sarsaga ma ne de mu ne moom en tout cas dafa kii day day ñëw vendredi ma ne ko foo loo def foofu ba vendredi mm-hmm. loolu la ma wax man sax euh, bo bu ñu doon bu Sonko dama ragaloon dema ragaloon ñu nekk si pays civil yi def yàkkantu yàkkantu ñu ne moom moo ko moom moom moo ko def loolu la ragaloon waaw yàlla def sutura mhm. sotti si ndox ba affaire yi kii sedd mhm. waaw en tout cas damay ñaan en tout cas damay ñaan yàlla pour ñu gis ko mhm. pour ñu gis ko en tout cas ñu ñu ko Et je demande pardon aux membres du gouvernement, à la population sénégalaise. La population. Uh-huh. parce que am na yu yu yu à suñu déggee lu mu wax. Uh-huh. day lu ñaaw. Uh-huh. voilà. dëgg la mm. donc mu ngi noonu mi ngi jéggalu nee population sénégalaise bi yëpp ak membre gouvernement bi euh, si lu euh, jot a xew nga wax ko léegi si sa biir wax euh, monsieur Touré yaa ngi may xamal ne mën nañ ko atteindre mystiquement maanaam mën nañ ko xar fa fuufa ndax ci Afrique la ñu nekk ba xam tamit yéen ñi ay parents am jéem ngeen a xool ak ñi nga xamante ne nii ñoom la seen xel màcc si fàll woowee ngir niir mbir mi comme ni ñu ko tàmm di defee ba xam exactement si lan la ne fu mu nekk nii xamuñu fu mu nekk toujours dañu bon parce que ñun suñ ko woowee duñ ko jot. Mm-hmm. duñ ko jot suñu xamoon parce que dafa doon wax mu ngi Touba. Mm-hmm. ren dégg muy wax mu ngi Dakar. d'accord léegi xam xamuñu fu mu nekk. xamu leen fu mu nekk. waaw. demu leen aussi si sëriñ mu xoolal leen. bon ñun dañu kii rek dañu def euh, kii dañu jàng. Mm-hmm. pour ñu def des prières mm-hmm. ñu ñaan prière mais demuñu si sëriñ pour ñu xoolan mm-hmm. waaw parce que bon comme toujours day wax en tout cas je me porte bien maa ngi dund loolu moo tax demuñu sëriñ mais dañu doon kii pour pour affaire bi sedd dañu doon def ay ñaan waaw waaye moom aussi euh, ñu ngi ko dégg muy euh, wax euh, la première fois ba muy door a xam le moom tekki na ndombal tànk maanaam démissionné na gendarmerie mi ngi naan da koo def ngir kaaraangeem waaye itam ngir kaaraange njabootam. waaw ah njabootam en tout cas mu ngi fale caserne. Mhm. waaw jabaram ak ñaari doomam yëpp ñu ngi foofu. ñu ngi foofu. waaw dafa doon sécurité njabootam ak membre famille am. Mhm. mais en tout cas dara du leen jot xam nga le Sénégal c' est un pays de droit. dëgg pas parce que Umar am na problème ak yeneen. Mhm. ñu ñëw ñu ñëw si si famille am. Mhm. raison pour laquelle euh, jabaram ak doomam yi ñu ngi si caserne bi. waaw. yaakaaroo tamit ne dossier bi mu yoroon nga xamante ne nii dafa diis lool mun nañoo wax ndax moo yëngal réew mi nekkutoon di si jot ay menaces wala yenn ya nga xamante ne nii ah, moo tax mu génn ci ah, ngir rek mun a ah, aar boppam waaye it aar njabootam amu leen xel aussi ne linimel moo war a tax mu ne dafay démissionner. waaw mais loolu c'est-à-dire que bon il être à la hauteur. Mhm. warul woon warul woon gaaw tiit. parce que bu moom de tenue la mm-hmm. dafa waroon jël responsabilité am mm-hmm. am na ay supérieur hiérarchique mm-hmm. su fekkee loolu dal na mu dem si ñoom ma ne voilà dossier bi mënuma ko il n'est pas le seul mais narul woon démissionné narul woon euh, en tout cas wax lu mu wax ni baaxul baaxul baaxul en tout cas la famille est désolée dëgg la waaw dëgg la euh, dégg nañ li nga ci wax euh, li mu def nii àndu leen si euh, neem xam leen ne moom démissionné na waaye daa mel ni ñu ngi ko considéré ba tey comme élément gendarmerie ci gendarmerie bi wax ilaa ci section de recherche bi ndaxte ba tey hiérarchie bi jotaguñu bataaxalam bi nga xamante ne ni bind na ko bu yee firndeel ni day tekki ndombal tànkam. waaw en tout cas defe naa ci ci Facebook lay def. Mm-hmm. bindul signé jokkoo service service gendarmerie. Mm-hmm. dafa def rek mu def ko si réseaux sociaux yi. Mm-hmm. jokk man loolu loolu loolu moo ma poussé ba ma wax moom kii la c'est parce que mm. moom il a assez été formé. dëgg la su fekkee day démissionné mu mu mu bindi yóbbu ko si si si mu mu ko war a yóbbu. Mm-hmm. jaru woon def ko si téléphone yi si Facebook yi si réseaux sociaux yi yónni ko. baaxul. dëgg la waaw mhm. bala ma la bàyyi rek amaana tey euh, capitaine Touré mu ngi ñuy teewlu boo amoon tey kàddu yu ngi koy dënk lan lay doon bon en tout cas je demande d'être euh, sérieux et mhm. toujours calme mu bàyyi lu mu wax mhm. baaxul mu bàyyi lu mu wax fu mu nekk ñu wax fu mu nekk ñun dinañu dem jëlsi ko loolu moo loolu moo baax si moom mm-hmm. waaw dëgg la donc fi mu ne nii daal famille am yéen a ngi ci njàkkare waaw waaw parce que famille famille bi en tout cas kenn ci ñun depuis problème bi amee kenn du lekk en tout cas puis ñu comme on est en deuil c'est ça parce que c'est c'est toute une famille qui a perdu un espoir mm-hmm. d'autant plus encore non seulement la perte de l'espoir mais lu mhm. mu wax lu mu wax mhm. c'est pas de notre euh, éducation dëgg la waaw yaruñu ko loolu mhm. dëgg la yéen famille yam fan ngeen nekk fii ci Sénégal ñu ngi Kolda ngi Kolda kon moom Kolda la sokkee ko waaw d'accord kàddu yi leex na sa kàddu gu mujj lan lay doon ah comme li ma leen jërëjëf tamit yéen tamit euh, seen seen waa rajo yi. Uh-huh. bon je vous demande en tout cas de nous transférer directement lu ñu wax ni uh-huh. ñu ñu ñaan encore gouvernement yi en tout cas comme dama koy répéter toujours nous demander pardon. Uh-huh. Euh, depuis la gendarmerie jusqu'à jusqu'au président la république. parce que am am na lu mu wax baaxul ci moom. baaxul ci waajuram yi. parce que waajur da nga nga bugg Mhm. dégg toujours li baax si sa doom mhm. nga en tout cas nga nga nga dégg lu lu baaxul si sa doom effectivement li moo tax je demande pardon mhm. à l'ensemble de la population sénégalaise dama ñaan tamit vraiment suñ ko gisee ñu dimbal ñu bee ñu jot ko waaw comme ça ñu lu luñ luñ luñ ko war a fu ñu jaar pour ñu fecc ko waaw. d'accord loolu leer na ba xam ndax yéen famille yam da jot ay menaces wala. déedéet déedéet kenn kenn menacé wu. kenn menacé déedéet. yéen euh, ngi ci jàmm ak ci kaaraange gu mot sëkk. jàmm ñu ngi si jàmm. alhamdulilah kon. alhamdulilah kon donc euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci leeral yi ngi si indi. jërëjëf madame eh, eh, donc eh, ma fàttali leen mu nekkoon Massiré ture di waajuru Oumar Touré di capitaine Touré mi nga xamante ne nii moom fësal sur Facebook ne daal dinay tekki ndombal tànkam gendarmerie moom mu mi sax capitaine Touré moom moo yoroon enquête bi ci mbir mi nga xamante ne nii mooy mbirum viol ak menace de mort buy wutale Adji Sarr ak njiital Pastef bii di Ousmane Sonko ñoo ko déggandoo nag ki nga xamante mooy waajuram dafa jàpp ne capitaine Touré àndul ak xelam d'après lu ñu wax ni waaye ba mbir mi amee ba tey dégguñu ko gisuñu ko li ñu soxla nag mooy gis seen doom ba mun koo jël nee nañ sàngat ko faj ko ndaxte Afrique la ñu nekk am nañ sax xel ñaar ba xam ndax euh, xarfa fuufawuñ ko loolu yëpp seen xel ñaaw na si buñ sukkandikoo euh, ci waajuram bu góor bu wax léegi di euh, rek Papa Massiré Touré dinañu doon wax ñun depuis Kolda ñoo ko déggandoo daal Massiré Touré nag nag moom xamle na ni eh, dara jotu ko nee na il est en bonne santé dara dalu ko waaye daal doonul kàddu ya nga xamante ne ñi eh, doy na eh, waajuram wala famille yam mu ngi ñuy xamal ne sax famille yam maanaam soxnaam ak ay doomam tamit xamuñu ana seen euh, kii di euh, capitaine Touré fu mu féete ñoom it dégguñu ko ñoo si bokk yem euh, di mbir mu doy waar ba nga xamante ne ni bëgg nañu koo gis neem sax xamle na ne démissionné na mais jusqu'à présent ñu ngi ko jàppee ne moom moomee élément la ci gendarmerie rawatina ca section de recherche ndax déposé wul bataaxalu ba tekki ba ndombal tànkam rax si dolli ñaari at la def section de recherche te balaa muy mën a démissionné nañ foofu mu def fukki at di mbir daal euh, mi ngi noonu mu doon réaction waajuram bu góor euh, fiire la ñuy yem ak yéen rek jaajëfal leen si yeneen i interview jaa ngeen jëf.